ñuy am mbégte ak kontaante di addu ngeen di teewlu mbokku téléspectateurs yi ci seen biir émission Voxo Arena di leen wax ni comme ni ngeen ko xamee ñu ngi waajal événement bu mag mooy le 13 muy combat Modou Lo Balla Gaye alors tey ñu seet si euh, koo xamante ne kenn euh, dootu ko présenté ci Sénégal mu nekk koo xamante ne dañuy yàkkamti di am ay analyse am dañuy euh, koy bégee bu baax a baax a baax monde sportif bi ñëpp xam ko bu baax a baax muy sunu papa alaaji papa Dieng alors moom la seet si tey fas yéene waxtaan ak moom tuuti ci li nga xamante ne moom mooy yëg-yëgam déjà bi combat bi taxawee ak yooyu ba ci li nga xamante ne moom mooy préparation ñaari champion yi ak li nga xamante ne aju na ci alors ñu bàyyi ko rek mu nuyoog mbokk téléspectateur mairie ñu daal di dugg ci waxtaan bi. Euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte ci ñëw bi ngeen ñëw pour waxtaan ak man ci wàllu làmb ji nekk làmb ju rëy làmb joo xam ne ñaari xale yi koy bëri rek d'abord seen taxawaay ci làmb ji seen seen seen ginnaaw ak seen man-man ci li ñuy def ndax xam nga ni ñoom ñaar ñépp seen biir làmb boo si seetloo ku ci nekk def nga loo xam ni wane nga ni mbër nga ci wàllu yëpp nag bari nag dafa doy waar dangay xalaat lii mu indi leneen yenn saa yi ngay gis mbër daanu jaaxle téye ay loxoom téye boppam ndax li mu gis xalaatu ko woon donc loolu mooy làmb mëneel nag am na kii ëpp wërsëg daan am na waaye loolu yëpp mën na bañ a nekk ndax ku yàgg seetaan làmb di ci gis yoo xam ni dangay gis. maa ngi fàttaliku keroog bi Mbaye Guèye di bëri ak sàmba Diaw mburum wàllu moo xam ni keroog bi mu bëri ak Mbaye sax mag la boo amul bu amul quarante cinq ans war ko sori wala moo xëy na sax cinquante ans mais ci biir bëri bi dafa daan Mbaye Guèye moom mujj moo daan boobu Mbaye Guèye kenn mënu koo daan xam ni kon am na lu ko waral loolu li ko ko waral mooy manque de préparation sérieuse c'est-à-dire nga préparer combat bi li ci war noppaliku bañ a génn entraîner waxtaan ak say xarit ak ñi la wër ak ñi lay jàppale ci làmb ji ba pare tamit jàng ki nga xam ne moom ngay bëril ndax tamit bëri ki ngay bëril il faut nga jàng ko comme yeneen discipline yi rek tactique équipe bu football yi gis nga dañuy étudier adversaire bi seet ni muy jouer seetaan ko seetaan ko seetaan seetaan ko bu bés bu dajeek moom dina am lu bari loo xam ni dina ko wàññi ci mëneelu adversaire bi donc préparation bi am na ci solo am na ci solo. alors euh, papa euh, bi déjà biñ ko biñ ko bëree am na mën naa wax ni neuf ans wala huit ans huit ans bi nga yëgee revanche bi déjà lan nga wax. xam ne dina métti rek. ndax seen bëree nit ñi dañ koy bañ mais règlement de compte la ndax seen adversité ni ñu mel ñoom ñaar ak di ku nekk gisee sa morom ak ku nekk li muy wax sa morom moo tax seen bëri du metti day metti mënul bañ a metti mën na gaaw nag mën na yàgg mais foo mu metti dama regal sax deret tuuru ci te xam nga loolu amateur bëgg ko sax ci làmb yu seetaan danga nga bëgg rek ñaar ñi séq bés bi ku ci nekk def li nga xam ni moo gën a rafet ba am ci ndam ndax nit ñi tamit loolu dañ ci tenir compte te làmb dafa doy waar parce que dafa gudd bi nga koy def war nga ci génne ay mandarga yoo xam ne bu ëllëgee boo demee ba baa ko ba bàyyi ko koo romb mu naw la te xam nga nit bu la nawee njariñ la préparation am ñaari mbër yi gis nañu Modou Lo ànd ak benn équipe bu am solo mm, ñu dem Espagne daal di fa tëju di entraîner ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye daal di dem INSEP seen ñaari préparation yi nan nga ko gisee. préparation yi la yoo xam ni fekkewu ma ko taxawuma fa wante ci sama xalaat dañ noonu amul bëreem du yàgg bu yàggee day sonn mais gis nga bëre ba dafa xeex suma mu adversaire bu mu dajeel li ñuy wax ni kooku loolu la man bu ñëwee ci foofu lay demee ak moom gis nga bu dem ak tafatin dañ ne bagaar gis nga dafa bagaar moom soog ko daan gis nga tamit bëreem ak euh, euh, Yékini dafa bagaar rek moom soog ko daan waaye ki muy bëreel nag dafa nekk xale du mag ndax boo seetee ay Yékini ak Tyson ñoo ñoo ko mag la preuve nañ ci làmb ji bàyyi ko fi kon bi muy bëreeg ñoom ñooñu ay mag lañu ñu hmm. hmm, ñooñu ay mag la ñu bi muy bëri ak ñoom euh, ki muy bëreel nag xale la xale bu mën li muy def xale bu xam li muy def xale boo xam ni ci xale yi mujj ñëw la bokk waane mi ngi euh, mi ngi ci kaw làmb ji bëri na koo xam ni moom moom a tolloo bëri koo xam ni moo ko ëpp bëri koo xam ni euh, moo ko nekk mag bëri koo xam ni tamit. xëy na moo gën nekk ndaw wala ñu bokk jamono mais gis nga toujours daf ciy génn daf ciy génn kon ban moom tamit dafa am étoffe champion comme Balla ndax loolu moo tax combat bi metti ndax ñi xam làmb ak ñi bëgg làmb xam nañ ne ñoom ñaar ñooy xale yi gën a xarañ ci làmb ji te seen palmarès wane na ko Modou Lo dem na Espagne am mbooloo mu mu àndal xëy na Balla bi muy dem àndul ak mbooloo mu toll noonu man jaaxal na ma sax yi ma gisee sa Thiès Tivaouane suñu kër parce que dafa ñëw ci gàmmu gi dama ko ni yow pourquoi demuloo ànd rek Balla nga jàppale ko yow même bu la fi bàyyi woon da nga waroon wax grand man damay dema ah, parce que il faut ma ñëw jàppale la ci entraînement bi pourquoi nga toog ndax xam nga xale bu yaru la moom ndeysaan nu ma père daal gis gis nga noonu la daal la demee te gis nga tamit euh, xale bi nga xam ne Modou Lo ñu mu yóbbu way lu ma trois ou quatre personnes yoo xam ne daf leen jël en charge nga xam ne kon combat bi moom tamit fonk na ko trop trop trop gis nga Balla tamit confiance bi mu am ak bi mu def bi mu dellusee feeñ na ci moom ah feeñ na ci moom état physique parce que état physique bi gis nañu ni euh, bi mu simmeekoo par rapport ak euh, bi mu photo déjà image yi ñu gis bokkut ak image yi mu photo euh, bi mu simee ko face à Gris Bordeaux loolu li waral mooy ñi ko yore ndax xam nga Aziz moo ko yoree ak rakkam te ñoom dañu bëgg défi dañu ñeme défi ñoom xamoon nañ ni combat bi pour mu bëreek Modou Lo il faut mu préparer wu gis nga nit ñi sax ñu ngi doon wax ni ba Balla kañ lay dem kañ lay dem même bi mu waree dem dem na ndax def na fa trois mois trois mois d'entraînement intense war nga retrouver euh, say say say say say say pas-pas ak sa man-man war nga ko retrouver te moom def na fa environ trois mois mais foofu on a senti que Balla gën na cherché muscule yi Balla yaram bi dëgër na mais puissance parce que mbër mu ngi soxla puissance puissance boobu noonu moo ma xaw a jaaxal ndax puissance bi daf ci bokk. ndax yow li nga xalaat moom la ñëpp xalaat ndax fi mu nekk nii boo doon def sondage Sénégal yëpp nee nañ Modou Lo mooy daan ak ailleurs xam nga lu tax dañ tenir compte ci loolu mais nag loolu xam nga nag lañ koy xamee. ci bésu làmb ja ndax loolu mënuñu ko xam mais defe naa ñiy préparé Balla ak ñi indi Balla ak ñiy ànd ak moom xam nañ ni loolu bu fekkee taxawu ci du baax ndax bu day bëri kenn du ko jàngal bu dee bés kenn du ko wax mais taxawaay physique bi nga xam ni moom la war a am pour mun a am loole ji war pour mun a contenir Modou Lo ci action yëpp ñu ànd ak moom loolu ci la ñu war a liggéey te defe naa ni dafa ñu liggéey nañ ci ndax buñ ci liggéeyul du am sens da nga Modou pour Modou Lo dara nekku fa. mu nag loolu mi ngi koy wax mais réponse bi mi ngi koy xam le treize. donc bala tamit doon xale boo xam ni dafa am jom te yaakaar nañ ni ku taxaw sa kanam ci kanamam moo la man te gis nga bëre ki ci ëpp audace moo ëpp chance ki taxaw ki taxaw di ko xaar man bëgguma mbër muy taxaw di ko xaar buy taxaw di buy taxaw di xaar adversaire am na combat yoo xam ne nag daf ko laaj du kombay yëpp. mais combat bi dafa laaj loo xam ni ci wàllu Modou ak ci wàllu Balla il faut ñu ku ci nekk respecté sa morom parce que Balla bu fekkee dafa defe nii na mu daane woon Modou Lo ak facilité boobu mu ko daane mu war na ko mën a daane tey Modou Lo dafa dafa progress ci diggante bi def ci màgg am ci ay résultat yoo xam ni ba ñu bëree ba léegi boo seetee point yi Modou am en terme de résultat moo gën a taxaw ndax amu ci défaite gis na am défaite wante ñaari tamit bu ñu bëree ka daan dafa yaakaar ne saa yu ñëwee mooy daan ah oui du daan. dafa def ni saa yu ñëwee moo lay daan. psychologique ndax dama ko daan. est-ce que jamono ji du doon erreur est-ce du doon erreur parce que gis nañu aussi Balla muy défoulé wu. ba mu simmeeku keroog est-ce du erreur. taxaw ne. <coughs> d'accord naa ak yow li fi ma d'accord ak yow mooy Balla li muy def du nëb nëbb. du erreur. non loolu erreur la. Moustapha Gueye bi mu nekkee champion bi mu wanee ci mekaayam à la télévision ci la dooleem wàññeeku mystiquement ndax li ngay def yëpp da ko wane te fii Sénégal la loolu teg euh, lu nit teg bëtam war na ko mën a wuti bi Moustapha Gueye film bi ñu def ci moom te mu jënd ko ci télévision bi fa muy sangoog fa muy bëreeg bu ko yaayam di ñaanal ak yooyu yëpp dafa wane boppam kon ñi muy bëreel bu ñuy bëri ak moom dañuy bàyyi xel ci loolu xam ni kii kat pour nga bëreek moom il faut nga ngemb te ngemb li il faut nga def li nga xam ni moo ci man ndax ndam dañ koy jënd. ndam dañ koy jënd. papa nu ñuy nu jëndee ndam. ci war nga def ko ci. loolu mooy jënd bi li ci war lépp nga def ko ci loolu mooy jënd bul bàyyi dara lépp xam boo demee marché ba di dugg lépp ngay jënd lii dem ci ci togg gi loo ci bàyyi rek day feeñ. booy Balla mun na xeex Balla xeex ak bëri jaratu koo jàngal mën na ko ndax wane na ko ci biir carrière am gis nga keroog bi dafa xeex ak moom gis nga keroog ko bi mu bëri Yékini dafa xeex ak moom même bi mu bëri Modou dafa xeex moom c'est que bëri ba nag dafa am lu ci am te nit ñi bàyyiwuñ ci xel mooy bal bi muy songi Modou Lô Modou dafa sëgg boobu dañu dóorante coup ba Modou Lô sëgg ba bu fekkoon Modou Lô siggi na muy ñëw xëy na bëri ba du du demee noonu mais Modou Modou Lo bi muy teg agi di dóor dafa sëgg. Mhm. ci la Balla ñëwee nag en force. ak vitesse. avant Modou di. di réagir ci la ko wëree ndomba mu teg tànk mu jéggi ko tuur ko. donc man la il a donc du bëri moom bi yoon bi yoon ak ku bu jël dina xool Balla hmm. ak ku bu mënta jël dina xool Balla te man xalaat naa ni sama xalaat Modou day xaar Balla ndax xam na ne Balla dafay ñëw lay bëri. gisoo Eumeu Sène buy bëri moom da koy maytu ba daan ko ndax xam ne ni jikko lay bëree te bëri du jikko. boo ndee jikko rek daanu bëri du jikko. oui parce que gis nañ ko aussi ci signature contrat yaa ngi koy wax léegi euh, li doy waar mooy Balla du du du làq li mu bëgg a def. li mu def sax da koy wone. da koy wone. xam bi xam nga fu mu loo nekk. Mhm. lak loolu la ñu wax. xamuloo ñu mu fa nekkal. xamuloo nu muy entraîné loo fu mu dem xamuloo fu mu demul déggoo ci benn coow te coow baaxul. buy bëre combat bu mel noonu la xew seen biir kër sa diggante say waajur ak la xew sa cumikaay ak fa ngay dem ak sa yaram bi nga am sax boo ñëwee da nga koy nëbb soo Modou day day toujours day nëbb yaramam kenn du ko mën a natt doo xool fu mu foo rek fu mu faible day nëbbatu suraitement lay sol keroog bi muy bëri ak Eumeu Sène dafa nëbbatu ba man dama mujj waaru du ko reetaan sax si suufu table ji la nekk nëpp nëpp léppam sol suraitement toog buy wax sax du siggi ndax bu sugee sax da nga xool loos bi ni mu toll ak mbagg yi ni mu toll am na ay man Balla exhibition bi muy def di wane boppam su fekkoon jigéen naa ko dama ko koy tere ndax amul njariñ li am njëriñ muy bés ba nga am état waaye wane sa état kooku supporters yi ngay waxal sax ndax bul énervé supporters yi tamit da loolu loolu lañ dañ la bëgg déstabiliser moo tax ñu lay ñu lay wax la naqar yi loolu mooy genre rasmi bi am en Europe rek ñoo koy def exprès diw buñ ko buñ mën nañ ko tàngal xolam wala ñu merloo ko nañ ko merloo loolu dafa yàgg ci sport. mais mais nan lay daanee Modou loo di ñëw euh, face to face muy mer. non c'est-à-dire euh, waruloo nekk le contraire. non euh, xëy na xëy ñàkkul ci échange yi ñuy def la xam nga tamit nit di nga am la naqari loo xam ni da koy dégg te li réagir loo nit ñu duñ ko xam ndax dafa am yuy waxante ci biir te am na loo xam ne bu ñu la ko waxee nga mer génn sa jikko te du yoon ndax nit tu dois préparer préparé à toutes les éventualités. surtout dans ce genre de combat xam c'est un combat historique qui rentre dans l'histoire mais ils sont assez professionnels laa laa mën a wax yenn yi waratu leen dépasser lamb dafay am énervement yaa ngi fàttaliku keroog bi Tyson toogee ak Balla Gaye dafa mujj gedd dem yoonam ndax pour moom Balla exagère ndax Tyson ni mu civilisé ak ni mu nekkee gentleman ak carrière bi mu am xam nga forte personnalité dafa gëm boppam bu mbooloo toogoon fii julli jot da naan mooy jiite daf koy def man toog nañu ñu seet suñu julli jot mu ni di jiite man ko foo ko teg munu ma parce que Mohamed laa tudd xaritu yàlla laa <laughs> donc c'est un garçon euh, boo xam ne dafa am une forte personnalité. mais gis nga keroog dafa génn dem. ndax xam na ni bu toogee ku mel ni Yékini mën nañu échanger te loolu du ci am mais Balla dafa daan énervé nit ñi Modou Lo xam na loolu xam na comme que dafay énervé nit ñi man man dama ko ci dama koy énervé. gis saa yu ñu nekkee ñoom ñaar moom mooy énervé même Modou bu énervé dina téye boppam parce xam na ni Modou pour xam na ni pour mu am ball il faut mu merloo ko bu bëriwul jikko du neex daan gisoo même bu ko ëma senti daan si jikko rek la koy daane da koy topp ëma mii ma ëma dellu ginnaaw mu attaqué ëma wàcc mu xàcc ëma touché ko mu ne nag kut ko kut bi naa ko jeexal loolu du yoon xam nga ëma ni mu yàggee ci làmb ak moo ko mag expérience bu mu am bu defee lu mel noonu daf koy arrangé def naa les le laisse ak jikkoom xaar ko ba mu ñëw mu def ko li ma koy def du ma yàkkamti. lamb ji gars yi nee nañu dafa mystique trop. combat bii nii kenn kenn kenn mës ta comprendre loolu gars yi lu ne ñu ngi koy wax. du ñàkk xam nga nit ñi tamit dañuy dañuy wax rek xam nga Sénégal loolu lañ bëgg ci aw ak werante ak wax mais combat bi mënul bañ a mystique. gis nga Modou Lo buy ñëw malgré qualité yi moom bagages yi muy indi temps général dañ naan ku bari bagage gëmoo sa bopp mais moom gis nga gëm na boppam mais day indi ay bagages. ndax Balla xam nga ni tamit gis nga buy bëri ay mbokkam fu nekk dañu fay dem gis nga Modou Lo buy bëri du bàyyi du église bi sax du ko bàyyi lay dem ci église sax xam ni kon moom gëm na ni loolu am na ndax fu mu dëkk tey ba njaay ku fa dëkk il faut nga gëm aada ndax tey ba dafa nekk euh, dëkk bu tuuti la wante dëkk bu mag la ci wàll googu Balla Balla tamit xam nga Casamance ba boo gisee sax ba ñuy xale dañ naan sëriñu Casamance donc euh, dañu am réputation boobu mais boo seetloo nag malgré tout ça Modou Lo indi na gàllaaj daanu indi na gàllaaj kon gàllaaj gi am na lu muy def mais li nga xam ni muy muy indi daan ak ndam liggéey la euh, émission bi jeex na lan ngay euh, dénk ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi rawatina ñi nga xamante ne keroog ñu dem ci làmb ja rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy supporters yi nañu bàyyi xel ne am na loo xam ne bu ñu ko defee mun nañ sax suspendre làmb ndax am na excès yoo xam ne duñ ko nangu ñu nekk ci dëkk boo xam ne ni ñi jàmm la ñu bëgg kon ñi nga xam ne dañuy dem làmb ji nañ xam ne rek ñaari xale yi bëre ku ci nekk am am na ginnaaw am na mbooloo te kenn moo ciy daan te ku ci daanu du tax làmb ji tëj làmb ji day continuer ci wàllu yàqkat yi tamit nañ bàyyi xel ni ñi nga xam ni ñoo tëgg làmb ji kenn dafa ñu dina jàpp leen li ci war yëpp dañ ko ci def ku leen xam xam ne li ci war yëpp dinañ ko def. combat bu nekk am na fi kii du su su sera pas le premier nii le dernier combat am na combat yu ko gën a garaaw yu fi jaar mais dañ ko gérer kon nañ ko gérer ñoom pour permettre à la lutte d'avancer ndax am na loo xam ne boo ko defee ñiy jàppale làmb ji dañuy tey seen loxo te defoon nañ ko. voilà mbokk yi comme ni ngeen ko gisee euh, sunu euh, sunu papa alaaji papa Dieng la moom la ñu seet si woon mu daal di waxtaan ak ñun euh, ci li nga xamante ne mooy événement bu mag bi nga xamante ne si la ñu jëm mooy le 13 janvier Cheikh Omar Kébé la woon ànd ak El ñoo seet sunu papa alaaji papa Dieng di jox di daje peace